asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu sibri ci Equivox TV maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko ci sàkku si yéen bu baax a baax a baax tey nag ku ne xam ne ne ñu ngi alxemes maanaam jeudi 21 octobre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglekaay liñ ñu andil te ñu dikkaat ak yéen si plateau asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 21 octobre 2021 dañuy ëkk ci yëglikaay suñu làmb leen koy dooreete yëglikaay bi nag tey xëtamu njëkk moom la ca xëy gën caa fës bokk na ci ñoo xam ne ni daal boo bëggee dëgg-dëgg yëglikaay bi daa jàpp ne gëjoon nañ leen gis ci làmb te nag le 28 le 28 novembre bii nu jëm daal maanaam ñoom ñooy wàcc ci làmb ji ñetti mbër lañ yoo xam ne daal yëglikaay bi xëy na tey wane leen ci xëtam mu njëkk bokk na ci forza bu faas ak ndakaaru pakala bu mbuur zos bu dóor dóoraat mel ni ki nag ñetti mbër yi moom ko ne xam na ne gëj nañoo bëre ci làmb waaye Gaston Mbengue mu leen indiwaat combat forza ak pakala le 28 novembre ca la nara am waaye ki nga xam ne moo di Alioune Seye tamit ak zos yëglikaay bi daal jàpp na ne kon nanu xaar le huit novembre daal bu bëggee dégg-dégg daal ah ab jàkkaarloo day am wàccaat day am yëglikaay bi jàpp na tamit ni dina xam ne daal boo bëggee dégg-dëgg première face à face bi nga xam ne nii moo war dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ku ko doon jooy di ko xaar bu yeboo nga dalal sa am xel ndax nag la vingt cinq décembre daal yëglikaay bi ne na ca lay am diggante Modou ak Ama jàkkaarloo la ñu fas yéenee def leneen loo xam ne ni wala ñeneen ñoo xam ne ni moom seenub jàkkaarloo jàpp nañ ko dimance jiinu jëm di la 24 octobre muy fils de Balla ma ngeen xam dëkk géej Géejawaay ak général Malika ka xëy nag di ca wax moo di Aliou Ba di magi bàcc seeraas di ab entraîneur waaye tamit di ab ménager Aliou moom la mu xëy di xamal ka nga xam ne moo di Fils de Balla daal da koy dànkaafu ne na ko nanga moytu jàppante bi ndax itam daa gis ne jàppante moom su amee digganteem ak général Malika mën naa am ay sens Fils de Balla du bëri du samay wax nag waxi Aliou Ba la di magu bàcc seeraas moom moo xëy tey di wax lu mel ne ki noonu ba tey du ñu génn Pikine ndax nag ku ne xam ne ne fan yi nu génne dégg ngeen ne ka nga xam ne mooy xalifa ñang ma ngeen xam mu jiitoon écritage si nga ba ma seen yore maanaam moom xalifa dafa démissionné yëglikaay ba nag xëy na nu xamal moom sunu làmb daal ne boo bëggee dégg dëgg daal daa mel ni ba mu démissionné daal gars yi wëri nañ ku koy remplacer ba fi mu nekk nii nag am nañ koo xam ne ni daal moo war a jël palaasu xalifa ñaar yëglikaay ba moo xëy dina ko wax waaye turam moom ba tey siiwalagunu ko sunu làmb xëy wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na dina ko wax muy séminaire ba nga xam ne ni daal CNG bi ñu ngi koy amal mel ni ki nag depuis démb ba tey daal ñu nga ca ay waxtaan yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax moom sunu làmb ba tey bu nu continuer ci mbir yu mel ni ki noonu daal daa mel ni ki nag mbir yooyu daal xanaa bu jeexee kon convocation wala woote dina am mu muy abaase boo xam ne daal ngir valider lañ doon def la ngir daal dal di koy jëmal yëglikaay bi moo xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu Ama Baldé ma ngeen xam ne nag fi mu nekk nii contrat la signé fa nga xam ne ni moo ne ca MMA ba ak club bi nga xam ne moom moo gën a mag ci wàllum MMA si àddina bi yëglikaay ba ñëw na daal dinu wax yan genre contrat la ak contrat ba na mu demee moom sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii ca tuuse lan kay fekk lu mel ni ki nag jamaïcain digganteem ak Luc Nicolaï daal collaboration ba moom am na ba pare la vingt te nag le vingt cinq décembre jooju ñu leen wax ne daal moo doog ama ca la ñuy jàkkaarloo ku yebu xaar ca lu baree baree bari ndax ñaari promoteur nag ab collaboration dox na seen diggante Luc nag moom loo ci mën a dégg daal mu nga ne patt moom jàpp njaamuram deful waxul moom daal mu ngi toog rek kulkulam kenn koo xam ne ni moom bu kulan tamit dina génn ndax nag yëglikaay bi na le 24 octobre lay ñëw moom Assane Ndiaye ak nag di combat yoo xam ne fas na ko yéene indi fa nga xam ne moo di Iba Mar ci dimanche ji nu jëm kenn koo xam tamit noppi la def jàpp boppam muy Serigne Modou Niang waaye yéen tamit yemu ca de yëglikaay bi xam nañu daal ci tuusi le 7 novembre bi moom ci lay waaj ci nga xam ne ni nag moom moo di ci làmb ji yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu ak làmb joo xam ne fas na ko yéenee tëgg kenn koo xam ne ni tamit maanaam fas yéene naa wàcc ci làmb ji moom itam yëglikaay bi mu nga xëy tey ñëw dinu wax ay mbiram muy aada fas ma nga xam ne daal yëglikaay bi ne daal la mu joué rëy na ci moom de te na tey bu baax a baax ndax bés bi mu jëm nag la 31 octobre diggante ak dafa Mbeur làmb la joo xam ne daal joo xam ne ju doy doy waar la ci moom yëglikaay bi moo xëy ñëw dina wax lu mel nekki noonu kenn koo xam ne yëglikaay ba xëy na andil ñu ko moom itam dimanche ji nu jëm daal lambi simple lay tëgg muy ablaay Diop ma jiite som production borom som production daal yëglikaay ba dikk na ci moom ak ay paada daasam ay feccam daal lanu yëglikaay bi de sunu làmb xëy tey andil lool lépp nag mu nga ca tuus ya nga xam ne moom moo di tuusi sunu lamb yabal de. jërë ngeen yi tey loolu lañ ñu andil muy sunu lamb tey moo fi ñëw ci wàllum làmb mu mel ni ki nag ginnaaw bi mu ziare gaa yépp bëgg leen ñaanal leen jàmm sàkku ko ci yéen ah ñaan jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm bàyyi yàlla na ko yàlla def si àddina bi yépp li nga xam ne nag tey moo gën a ci yëglikaay rawatina sunu làmb xëta mu njëkk forsa forsa bu faas ndakaaru moom ngeen gis paka la ca digg ba zos nekk ca côté droite ba forsa akum dëndam mel ki nag ñoom ñetti mbër yi moom ku ne xam na ne gëj nañoo wàcc ci làmb ji yëglikaay bi ne nag ah daa mel ni ki nag ñooñu Gaston Mbengue fas na leen indiwaat nag ci làmb ji kañ lay doon le 28 novembre mu mel ni kon ku yebu xaar leen ndax Forza ku ne xam ne ni gëj naa bëri diggante ak Abdou jub ca Diourbel la woon yaakaar naa 2018 la woon loola njaarim keroog man mii maa ko reporté ca Diourbel fa la ko daane ba mu ci jógee ba tey yaakaar naa ne gisaatuma fu mu sa gi ci làmb bëre ki nga xam ne nii moom moo doon pakala tamit gëj naa bëree lool toog na temps bu yàgg gri bëriwul lu yàgg-yàgg-yàgg toog na ko bëriwul moom pakala su ma jumul sax ma ne est-ce que la mujj a bëree stade Demba Diop ki nga xam ne moo di Zoss moom defe naa ne ba ko set euh, daane tamit suma ma jum fa la gëjëwoon ci làmb loolu tamit nekk ay at yu xaw a yàgg demoon na sax ba ne moom bàyyi woon na waaye nag mujj na dellu si waat ndax itam nit moom mën ngaa wax loo mënut waaye def loo mënut mooy jafe loolu mooy coow li te ku ne xam na ne Zoss daa bokk ci làmb marqué ci empreinte am ba pare yaa ngi dégg ñoom ñett ñi nag ku ne xam na ne am nañu ay combat ka leen tëgg suñu papa ñu koy nuyu di ko ziar Forza digganteem ak la ndax ku ne xam ne Luc Nicolaï tëggul na fi seen combat combat bu taroon fa nga xam ne moo doon ca Thiès bu ngeen rappelé woo face à face ba amoon kera bés boobu Balla Gaye de ak Yékini nii stade Lat Dior wala Maniang Soumaré ñaar yooyu benn la ci woon ca Thiès bés boobu mooy ba nga xam ne ci la Yékini xaaroon Balla ñu ne daa yéex a ñëw Yékini dem yoonam bés boobu defee naa ne ci la Forza bëri woon ak Pakala combat bu metti bëri woon xeer lool ba yàlla dogal ki nga xam ne moo doon Pakala mujj am ndam yàlla di doxaat ba Gaston bi indiwaat combat bi kon foofu ramas bu naran metti bu nara a neex moo fa war am beneen combat boo xam tamit combat jànq yaakaar naa ne muy Zoss ak Alioune Seye 2 ba tey Gaston Mbengue le 28 novembre loolu tamit retour Zoss nit ñaa koy xaar comme daa dikkaat ci làmb ji bëgg a ñëwaat jëlaat place am lan lay indi ak bi mu demee ñi fi bàyyi woon ci lan lañ nekkoon ndax ñun ñu fi bàyyi woon dañoo toogoon ñoom croiser les bras liggéey di di di seetaan wala dañoo liggéey lu ëpp lu mu liggéey ci diggante bi loolu lépp le 28 novembre lañ koy xam parce que nag ku xam na ne Alioune Seye ci diggante bi bi Zoss gëjee ci làmb moom bëri na fi ay combat yaakaar naa ne am na fi combat bu mu waroon bëri ñaq jariñu lamb ja mujj yàqu ndax jàppante waaye terewul dikkaat na Gaston mi ngi tëggaat ko moom Issa Pouye mu tànn ko ci arène nationale bu yàgguloo njaay ay weer la rek ci ginnaaw kon tey defe naa ne moom tamit buñ de wax ci côté repère mën nañ ne est-ce que du ëpp sax Zoss ay repère ci lamb waaye nag Zoss du mbër mu ndaw loolu moom na ko ñëpp bàyyi xel ndax tàkkusaan bu ne am na ko ci làmb bu ñu continuer ba tey beneen tàkkusaan boo xam ne gis ngeen ko le 24 octobre muy dimanche di jëm ci Assane Ndiaye borom bool production moo ko tëgg moo war dox ci diggante Fils de Balla ak général Malika ka xëy di ca wax nag mooy Aliou Seras Aliou Seras Aliou Seras Aliou Ba nag bu ngeen ko déggee sax ma naan Aliou Seras ngeen baal ma Aliou Seras ak Aliou Ba laa bëgg a wax magu bàcc Seras moom nag technicien wu làmb la yore ay mbër yore écrit yaa ngi dégg moo xëy nag di indi jàngatam ci combat bi ñu ko laajee moom dafa jàpp ne sax kii di Fils de Balla na moytu li nga xam ne ni na na éviter corps corps waaw corps à corps bi xam naa ne mooy wàllu tóorante ah loolu nag bi si man a ñàkk parce que ñoom ñaar faw ñu xeex bëri xanaa ñoom ñaar ñëpp sax dama naan ku ci ne est ko moytu ndax làmb moom lu la waay mën a wax mooy saa boo jëlee ku foo ko warul a jëlee sa làmb mën naa yàqu làmb itam benn moment dinañ la mbër mi yaa ko dàq bëri balaa ngay bëree yow mu pett la bëri ci sa kaw ba daan la ba dem loolu gis nañ ko ba tàyyi kon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne nanga nga moytu bu baax a baax dimas te xam ne ay xale lañu tolloo nañ génération te itam ni ma leen gisee keroog taxawaay neexoon nañ te ku bëgg na combat Balde mooy ña nga doon film kera ca drapeau Bamba Fall pour nga bañ koo fàtte ñaari mbir yu ñu war a bëri dimanche incha allahu rabbi Assane fa jaar bu nu continuer écritage si nga bi ma seen jiite président ba di Khalifa ñaa gis ngeen ko ñu ne dafa dafa démissionné woon fan yi passé bi mu démissionné nag daa mel ni gars yi nañu remplaçant waaw remplaçant ba nag waxaguñ tur bi mais d'ici quelques jours wala fii ak le novembre lañ wax daal dinañ ki nga xam ne moom moo jël place Khalifa ah, loolu nag bon comme ni ma déggoon kera am na bu mel ni ki Malick ñu ngi ndeysaan wax ci ne moom loolu gënalu ko parce que Khalifa Niang nekk na koo xam ne ni daal démission ci taay si nga nekk loolu ko doon na ci dox tànki jàmm pour loolu mën a dikkaat mais malheureusement xam naa ko loolu est que mujjul mujjul sotti mais bon lu am solo rek am nga droit nekk ci benn affaire diggoo mais nag warul yàq seen diggante dara parce que defe ñoom ñëpp Pikine lañu bokk te ñoom ñëpp Pikine lañu représenté waaw mi li ci am solo rek mooy rafetal gi rek moo ci am solo ndax ñàkk ànd terewul diggante yàqu li bon ci ànd mooy tàqalikoo bu ñaaw loolu la ku ne war a moytu sa diggante gor sooy jëflanteel képp ko mën a jëflanteel bal de bu ngeen di tàqalikoo fexe leen tàqalikoo ba bañ a ñaaw ak lu mën a xew pour en ëllëg ndax yàlla dafa noppi te àddina daa gudd tànk te man ngeen a dox ba taje amaat te bu daje amaat tey kara ku ko ñaawalum da nga rus te rus nag yàlla nañu yàlla musal ci gàcc baaxut ci su gor bu nu continuer ba tey séminaire u CNC bi nga xam ne nii moom la ñuy def ne nañ commencé nañ ko depuis ah loolu nag xam naa lu fa tukkee rek dinañu ko indil ci wàllum làmb ji la xam naa ne waaw Ama Baldé signé na ca MMA club bu gën a mag bi la ñu wax signé nañ yëglikaay bi ñoo na ci signature ba la tënku ca biir yooyu ak lu mel ne ki noonu waaw foofa daal fa la Ama signé ah manaat saman facture yi daal mbir yi yaakaar naa noonu la tudd Ama nag xam naa kon loolu dina ko dimbali ci combat bi mu jëm mu gën a préparé professionnellement diggante ak Modou ndax nag club boobu bu ñu ca la signé defe naa foofu boo fa di nga war a mën a gën a def sa liggéey bu baax a a baax Ama moomu nag promoteur bi ko tëgg moom Luc Nicolaï ak beneen promoteur bu nekk si lamb ji muy jamaïcain ci tuusu yëglekaay bi ñu ngi xam ne daal collaboration am na seen diggante boo seen face à face le 25 décembre kii bu xaar face à face bu nar a neex ci diggante Ama ak Moodu xaw nag fu koy defee est-ce que du doon arène nationale waaye dama naan foofu loolu foofu la foofu la war a xaj wala Grand Théâtre wala Léopold Senghor loolu ci stade la xaj ndax xam naa Pikine fàq Parcelles fàq loolu Sénégal yëpp koy reeme Moodu ak Ama toog ku ne téye micro. microphone du noonu la ko anglais yi waxe ñu waxante ku ne wax jox sa morom ah balde balde loolu xaw ma kañ lay doon mais yàlla nañ ko fekkee te tal di nuyu lig moom nag mu ngi noppi rek la yëg li kay mu ngi jàpp daal boppam njaamuram waaw des fois de noppi day gën wax wax ja bu amut njëriñ noppi da koy dal di gën mel ni kon daal collaboration boobu tamit ñu koy rafetlu parce que euh, jamaykee moom su collaboré ak Luc Nicolaï war na mën a nekk ndax Luc Nicolaï woy jur la ci jamaykee jamaykee doomu Luc Nicolaï la te am nay moment Luc jamono yi mu ay jafe-jafe dëgg jamaykee bokkoon si ñu taxawoon daan taxaw ci ngir loolu mu génn ci yaakaar naa am na benn conférence de ci woote woon place de souvenir kër man maa nga foon jamayke lépp na rafet rek waaw seen collaboration boobu wax ka ni fi dikkoon tey nga xam ne ñu ngi ñuy suivre suñu soppe yi waaw ay ndax man damaa awuma ay fans mais soppe laa am rek waaw ñoo xam ne ay mbokku taalibe leen ñoo bokk luñ bokk parce que ñuy dund làmb ñi nekk à l'étranger ah, ñoom ñëpp du ma leen fàtte ñi ñee nga Afrique du Sud ñee nga Côte d'Ivoire ñee nga États-Unis d'Amérique Italie Espagne France Russie Arabie Saoudite ah Dubaï fu nekk ni da nga fa di béggee Babacar kon yàlla seen jàmm yàgg ak ñi nekk fi nga xam ne moom moo ci réew mii wala Afrique bi nu nekk mais Adama Ndiaye tamit depuis Italie moom du ma ko fàtte ak Ndongo Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee tuuti yaay Sarr Espagne ak soxna Asi Diagne bu xarañ loo depuis Nouakchott sa Mauritanie aw jóg bu Balla Gaye ko fàtte mais Balde yow bi yàlla na si jàmm yàgg taalibi Serigne Touba moom nag Bàmba rek la bëgg Balde waaw moom moom loolu moom ma ne ko yaa bëgg ku baax te yaa bëgg lu baax bëgg Bàmba daa gën a wóor yàlla nañu yàlla defal ñu bëgg Bàmba te bëgg képp ku baax nag bëgg Bàmba bëgg Maodo bëgg limaam bëgg Serigne Thiénaba bëgg Boukounta Ndiassane amul ngaañ yàlla nañ ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñuy tamit suñu mbokku chrétien yi parce que tamit maanaam ku nekk rek fa euh, foofa moo xóot ci yow mais yàlla moom noppi na yàlla na yàlla def jàmm bal de ba suba incha allah rabbi ah attention Jackson